الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد محمد المكين وعلى آله وصحبه صوي الرضوان والتمكين mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen gërëm ci déglu bi di ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg ak ub jariñu ci foofu nit mën a nekk noonu ko sëriñ Asna waxe fan yi ñu weesu ñu ngi doon waxtaane xarib oxot ak xew-xew ya ca am ba ñu yonente bi salallahu alayhi wa sallam toppatoo ña ca ña fa des ak nu mu leen fonke woon ak nu mu leen daan bàyyee xel ñoom ñu des ca xare boobe lu foofu lañ toll woon ci suñu waxtaan ñu waxoon ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam mës a dañ di fàttaliku doxi ni jàmbaar yooyu ba ci ak mu dem sax bi mu demee ba toll ci war a bàyyi ko ci àdduna dem na ziyaare ji leen ñoom waa uxat ñaanal leen waar nit ñi ci ñoom Uqba ibnu Amir mi ngi wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na jullee ji waa uxat gannaaw juróom-ñetti at mu mel ni dafa dem pour tàggu leen ginnaaw bi it mu yéeg ci mimbar bi daal di wax ne man de maa ngi leen di jiitu ji maa leen di seere it fa may dajawaat ak yéen it mooy déeg ba mel na ni maa ngi jàkkaarloog moom fii ci sama taxawaay bii tiituma ci yéen it ngeen di delluwaat di bokkaale mbaa ngeen di delluwaat di doon ay yéefar waaye li ma gën gën a tiit ci yéen de mooy adduna ngeen di ko jëkkante jëkkante adduna rek de mooy li may tiit ci yéen muy wax ji yéene muy wax jiw yéene ndax amul lenn lu may ragal ci yéen lu dul ngeen di jëkkante adduna dafa mel ni ab tegtal la ci yonente ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax taarixu islam mën nañ ni jafe-jafe yu jullit di jànkonteel muy boobee ba fi nu toll mi ngi bàyyi ko ci jëkkante ak kilifteef mbaa ñu xëccoo alal xëccoo alal ak jëkkante ak kilifteef lu dal jullit rek moo leen ko teg loolu moom màbbu nguur googu ñu taxawaloon dawla bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko taxawaloon ànd ak saxaabaam tuur ci seen i deret ba dawla bi taxaw la ko màbbu ba taxawatul mooy xëccoo gu jullit yi xëccoo ak kilifteef ak di xëccoo alal muy baat boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon tasaaroo gi jullit yi tasaaroo mënatu ñoo doon benn dara sababu ko lu weesu xëccoo alal ak xëccoo ak kilifteef ba ci ba ci yoon wi colonialiste yi am ci ñoom pour mën leen yilif dara waralu ko ci ñoom lu dul xëccoo ak kilifteef ak xëccoo àdduna kon wax jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni moom rek laay ragal ci yéen loola feeñ na ca jamono boobee ba fi ñu toll ba fi ñu toog ci jamono rek kon jullit yi war nañu bàyyi xel lool loolu lii nga xam ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni moom lay tiit ci noonu ndax lam andi woon te mooy diina joj nit ki bu yorul ñaari dërëm it mën a dem ba yilif adduna bi te lépp mën ko teg ci aw yoon loolu moo gën a walare alal waaye nag dafa mel ni dañoo fab alal teg ko place diine kon jullit bi ne war naa bàyyi xel ni loolu yonente bi doon ragal ci noonu musiba la tey musiba la li nga xam ne nag mooy xikma yi am ci xare bi te ay borom xam-xam tudd ci ay yu bare bare ni ay xikam la yu yàlla def ak ay njariñ yoo xam ni ci xare bi rek la mën a jaar ngir feeñ la ci jëkk mooy la ci jëkk ci luñ ci war a jàng mooy xare bi dafay xamal jullit yi mooy mooy ndigal ak ñàkk a topp def lu ñu lay tere ak ñàkk a topp la ñu lay digal li muy jur lañ ci jëkk a jànge mooy mooy ndigal lan lay jur ndax gis nañ ne xare bi gañaay lépp mu ngi sababoo ci ñun ñu yor fett yi te yonente bi tegul leen ci kaw doj yi ni leen fexe leen ba lu ngeen mën a gis pour ñu fi jóge jóge gi ñu fa jóge rek moo sabab ñu gañe leen kon loolu dërsi bi ñu ciy jëkk a jànge mooy mooy mooy ndigalul yonente bi sansom ana lan lay wàññ danañ ci jànge it ni yonente yi li doon seen aada mooy yàlla da leen di nattu ci njëlbeen waaye nag nattu lu mu tartar rek mujj ga mujj ga ñoom la yàlla àndal te mujj ga ñooy mujj gañe ñu mujj taxawal liñ bëgg a taxawal kon natt bi nga xam ne natt nañu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit yi ci xareb Uhud des na ci dégg loolu aaday yonente yi naka jëkk ci yëngu lañ daan jaar xikma bi nga xam ne it moo tax ñu di leen gañe ci njëlbeen te buñ leen gañee gannaaw bi ñu dikkaat ba gañewaat lay xikma ba mooy bu fekkoon ñoom yàlla dafa faral ñoom rek ñu continuer di gañe saa bu ñu xaree gañe kon dana am ñu dugg si ci biir julli yi ñu ci bokk comme ni nga xam ne jamono bi mu gañee xare Badar mboolum naa fekk dugg si nañu ngir am lu ñuy ragal mbaa am lu ñuy xeeñal te fekk ni dëgg dëgg la lañ feeñal ci kaw bokkut ak la ci seen i xol loolu bu ñu demee ba xare ak ñëw ba ngañaay li am dañu daal di fës fànn la ñu daal di nëbb ci seen i xol dañu mujj di ko di ko béral ci seen làmmiñ kon ngañaay li des na ci dégg xekk mab ni bu ñu continué woon di gañe ñu ci bokkul danañ ci dugg te kon kenn du leen mën a xàmme ci biir nag biñ demee ba naafeq yi leer noonu jullit yi dinañ xam ni kon am nañu ay noon yu nekk seen biir ñu xam ni ñu leen di moytoo kon loolu xekk ma bu am solo la danañ ci dégg yit ni yéex gi ñuy yéex a gañe si béréb yi nga xam ne dañu leen di nat di leen ëpp doole ñu dem ba tiitaan yi xool dikkal leen loolu ak tarbiya la gu muy tarbiya bakkan ni jullit yi ndax bu fekkoon ni dañuy gañe fu ñu toll yàlla faral leen ñuy gañe fu ñu toll danañ dem ba gis seen bopp ak rëy dugg leen ñu jàpp ne ci seen njàmbaar lañ ko def waaye nag buñ gisee fañ warul na rëyee yàlla dam mu seeni gotti seen i bakkan bu baax a baax ñu gañe leen saa bu ndimbalu yàlla ñëwee danañ xam ne lii ndimbalu yàlla ak rëy rëy lu leen ci fekkati ba tey dàq li ñuy dàq ak rëy ci ñoom képp jàpp na ñu di leen gañe ci yenn ci bëri naka noonu it danañ ci dégg ni loo xam li ñuy wax ni yàlla dafa mën a waajal ab jaamam ab cër bu fekkee nag cër boobee mu ko waajal ay jëfam mënu caa àgg fokk am natt lay andi teg ko ko ngir àggale ko ci cër boobee kon gañaay li ñu leen gañe ak jàng jafe-jafe yañ ci jànkonteel bëgg leen a àggale ci martaba yoo xamante ni seen jëf mënu caa àgg ba tey bokk na ci xikma yi yàlla doxe ak jaam naka noonu de ci xare dafa bokk ci dafa bokk ci martaba yi gën a kawe ci martaba yi wala yi muy sha shahada moo tax yàlla andil leen ko ña nga xamante ni ñoo ñu ci am cër boobu ñu jëlee ko ci bu fekkoon ñooy gagné toujours cër boobu kon duñ ko am naka noonu it yàlla dafa baaxoo bu nammee alka ci ay yéefa fokk rek mu wutal ko sabab kon def leen ñu gagné julli ji ba gaañ gaañ yonente bi sànni ko ay xeer yi ñaaw yi ñuy def ko ci ñoom loolu day doon sabab ngir alkade ji yàlla soxla ci ñoom bu man ko def fekk ñoo ko sabab ci seen loxo lépp bokk na ci xikma yi nga xam ni feeñal nañ ko ci xarab waxat ginnaaw bu xarab waxat boobu jàlle boobu xam-xam yi génn nañ ko ci mu mel nag xarab waxat ak badar xarab badar ak xarab waxat ak résultat yi ci génn ak xikma yi ci feeñ doy na sëkk ab dës ci ab jël buy jàng ndax xare bu jëkk bi mbooloo mu néew lañ gañe ngañaay lu réere ba ñëpp di ko dégg mbégte tasaaroo ba daj kapp ci jullit yi xare bu ñaareel bi bari nañu mbooloo waaye dañ leen gañe ngañaay lu metti ba aw naqar daj kapp ci xoli jullit yi mu mel ni adduna ba adduna daj kon génnul ñaar yooyu mbégte la aku naqar ab jullit nag la cay ab këram ci ñaari mbir yooyu mooy bu mbégte ñëwee mu sant yàlla bu naqar ñëwee mu mën ko lii mooy cërub jullit bu mu war a jàng ci ñaari xare yi dëgg ak ak caaxaan nag mësta dañ di xeex ci kaw àdduna te du dañ di xeex moom mukk ba ba yàlla yi doon na suuf si ak ñi fa nekk kon wakkiirlu ci yàlla ak sukkandiku ci sa jëmmi bopp ngir jàmmaarloo ak jafe-jafe yi war teef na ci jullit bu ne léegi nag diggante kon loolu mën nañ ni loolu mooy ñambaas yi nga xam ne waroon nañ koo eggale mu aju ci xareb Uhud diggante xareb Uhud nag ak la ñuy wax sulxul Xudaybiya te mooy muahadatul Xudaybiya mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee di umra ji te ñu gàllankoor ko ba defu ko diggante boobu yi bari na ay xew-xew yu fi am xew-xew yooyu nag donte duñu jaar ci bu ci ne ñu indi takkantal yi ci nekk yi sew sewaan yi yëpp danañ indi li ci ëpp solo ba la ca ab jullit mën a jariñoo moom bu soobee yàlla des na ko leer xew-xew yi li ci ëpp solo ndax gannaaw bu xarab waxat jeexe ak ngañaay loolu yi nga xam ne moom lañ gañe jullit yi léegi mbooleem yéefar yéeg naafeq yéeg yahud yéeg ña doon wane ak cofeel te dëgg ci ñoom ak ña leen bañoon te ñi mënuñ ko wane ñëpp dañu daal di fital ci ko ñu ne woon lañ nekk rek ci biir loolu jullit yi wet gu ñu dansé bàyyi ko leen fa ndax ginnaaw bu xare bi jàllee ñaari weer képp lañ ci rek banoo asad jóg ngir dal si ci kaw madina dugg ñuy wax banoo asad waaye yonent bi sallam ci xikmaam aku xereñam dafa mës sa toog rek ne tekk nii wàcc ci àdduna noonu jamono bu ne day lijjanti li ñuy doxe jamono bu ne mu ngi lijjanti di lijjanti ay mbir nii ba xam fu jamono fu jaww ji toll nga xam ne lu ñu cocc rek daanaka am picc du naaw sax te lu wax nañ ko lu dul sax wax yu gi jóge ci kaw lu dul wax yu gi jóge ci kaw sax dafa doonoon ko am xikma nii ci gëstu àdduna bi ni muy doxe débu gàtt la am ñu xamal ko ni ko waa banoo asad waaj nañu ngir dal si ci kaw Madina ngir dal si seen kaw yonte bi bu mu leerloo ba xam ne loolu lu wér la mu daal di jëkkante ak ñoom yabal ku ñuy wax abi salama bale ko téeméeri nit ak juróom fukk ci muhaajiroon yi ak lansaar yi ñu bett leen bañ bettee jurub banu asad googu ñu daal di tasaaroo dugg ci biir xur yi ñenn ñi làqutu ci doj yi ba loola foofu rek la mujj maanaam mujj na ab xeex mujj fa am bay mujj fa am am na jur goo xam ni habal lañ koy wax ak xaar ñoom itam dañoo ñëw wane ni dañoo jébbalu ci weeru safar ci atum ñeenteel mi ci gàddaay bi weneen dañoo jébbalu daal di wax yonente bi ne ko boo nu mënoon a yabalal ñu nu jàngal diine jàngal nu alquran yonente bi yabalal leen fukki nit ñu ànd ak ñoom bëgg a àgg ci seen dëkk ngir jàngal leen waaye biñ demee ba ci yoon wi ci béréb bu ñuy wax arrajiya ñu daal di woo jurug bani Xuseyn jurug bokk ci bani Xuseyn ñu leen wax banu Lixyaan ñu daal di leen di wër daal di leen di rey rey juróom ñett nit ña ñaari nit ñi ci des ñu jàpp leen yóbbu Màkka jaay leen fa ñañ fa jaay mooy ku ñuy wax Xubayb ak Zayd ibnu Dusna Zayd ibnu Dasna wax nañ ne Zayd ibnu Dasna moomu dañ ko rey ca saase moom ka ci des mooy Xubayb ñu tëye ko di ko enquête ba gis ni bokk na ci ñi rayoon seen i mbokk ca uxat ca ca xareb Badar ñu ne kon dañ koy fayi ko ba dañ ko génnee ba ca xaram ba ca xel ba ñu yeew ko fenn dañ koy bëgg a rey bokk na ci fi yenn fi saxaaba li fi saxaaba yi tegoon yonente bi ak ci ak cofeel ñu demee ba di ko bëgg a rey Abu Sufyaan ni ko ndax bëggoon nga fii nga toog nii tey Muhammad toog fi te yow nga nekk si kër am jàmm kooku ni ko wallaahi déedéet bëgguma nekk sama kër di am jàmm yonente bi nekk këram ak dëkk di ko jam dara lu ko naqar di ko dal waxuma la nag muy nekk fii mu nekk loolu muy wane cofeel gi ñu amoon ci moom ak fu ñu ko tegoon ñoom saxaaba léegi noonu lañ ko yeewee daal di koy rey bu loolu jàllee ba tey Abdullah ibnu Unais ba tey yonent bi saa sallam dafa dégg ñu ne ko Xaalid ibnu Sufyaan mi ngi dajale mbooloo ngir xare si ak moom yonent bi yabal Abdullah ibnu Unais ba mu demee indil ko bopp ba indil yonent bi saa sallam bopp ba am na ku ñuy wax Abu Bara Amir ibnu Malik moom itam dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Madina ni ko dañoo bëggoon nga yabalal nu mbooloo mu ñëw najd ngir woo leen ci sa diine ji te yaakaar naa boo fa yeblee de danañu la topp yonente bi ni ko ñoom di waa najd de dama leen di ñënawut mu wax ko ni ko boo ma booleeg ñoom man maa leen di aar fas naa yéen dara du leen def yonente bi boole ko ak juróom-ñaar fukk ñu bokk ci tànneefi saxaaba yi ak ñi ci dàq jàng alquran bañ demee ba àgg ca fa ñuy wax biirul maona fa lañ toog yabal xaraam ibnu milhaan jox ko leetaru yonente bi mu jëm ci amir ibnu tufayl mi doonoon kilifa waa naj di googu yi waaye ba mu demee nanguwut a xool bataaxel ba dafa digal nit mu doxe ko ginnaaw jam ko paaka daal di woo giirug zakwaan ak ansiya ak raan ñu daal di peeg saxaaba yi yonent boobu saxaaba yooyu daal di leen di rey ñoom ñëpp ba mu des Kaab bu Zayd ibn Jaar nga xam ne dañoo rey juróom-ñaar fukk yëpp ba mu des kenn day doon naqar wu metti ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñu wax Amru ibn Umayya ak Munzir ibn Uqba jaaroon foofu ànd ak meneen mbooloo biñ seeni tan yi ñuy biiw fi xare bi xew ñu wàcc fa bañ fa wàccee gis ni ay jullit lañ doon xeexal lañ lañ fi rey ñu wàcc ñu ñaar di xeex bañu rey Munzir moomu jàpp Amru ibn Umayya waaye bañ ko yóbboo mu xamle laaj ko fu mu bokk mu ni moom ci giróog mu dar la bokk loolu moo waral ni comme ñoom ci giir googu la bokk duñ ko duñ ko jaamuloo daal di koy wat bàyyi ko mu dem ñu ko bàyyi mu dem mu ñibbi dem bi mu demee ba ci yoon yi ba àgg fu ñuy wax alxarxara mu wàcc ci ron ak garab ba mu fa wàccee am ñaari gaay yu bokk ci benn kilaab yu fa wàcc topp fa ak moom ba ñu nelawee mu jóg daal di leen di rey daal di wax ni ginnaaw ñoom ñoo rey suñu mbokk yi fayul naa sama fayul naa sama sama morom sama mbokk ji ñu rey waaye nekkati ñooñu amoon nañ colère guñ seq ak yonente bi ci ñàkk ab xeex bañ a dox seen diggante colère bu doxoon seen diggante yonente bi sanson bi ñu leen reyee ba ñu bokk yonente bi sanson yonente bi quoi loolu dañ dënte la daal ne waaye nag ginnaaw rey nga leen kon damay joxe seen diya diya ji mu war a joxe it kon day wax jullit yëpp ñu jàppale ko ci pour ñu fay diya ji léegi war naa demit ci yahudi bani nadir ñu ngi woon ci biir madina te lañ si yente woon mooy ku si am kuñ rey bañ war ko jox ji na ko ñëpp jàppale comme noonu nga xamante ne noonu lañ defe woon tomb yooyu ci buntu ñëw gi bi yent bi doo ñëw madina muy muy def leen war ñu dimbale ko ci diye comme lañ ko waxante woon yent waaye nekkati li muy sàkk mu diye jooju moo nar a sabab xarab bani nadir ndax yent bi ba mu fa demee waxtaan ak ñoom ci loolu ci diye ji ñu ne ko waaw daañu ko mën ngaa xaar fii ñu dem waxtaan ngir jàppale la ci diir waaye dañoo baaxoo wor bañ génnee ba toog di waxtaan say seytaane tabal ci seen xel ni leen daal mën ngeen ko kuditaal fii bala mu koy jële léegi ñu daal di waxtaan waaw ana kuy jël aw doj réeréer yéeg ci kaw garab bu ñu demee ba toog ba mu toog ba jekk bañ ñu waxtaan ngir lijjanti diyee ji mu dóor ko ci bopp bopp bi toj ñu jeex léegi am na ku rafet am xel ci ñoom ka ka ci gën a ñaawam xel muy muy muy amrum ni jaxaas ñu ne man naa koy def ka nga xam ne moo ca gën a rafetam xel ci ñoom ñu di ko wax salaan ay muskam ñu leen bu leen ko def bu ngeen ko bu lii ngeen di di di di di fexe nii bu ngeen ko fexee ba jàpp dana sotti dees na ko ko xamal te bu boobaa kuléré gi doxoon seen diggante ak moom firi ngeen ko man de am na yéen ci lii ngeen di wax waaye ñu dëggal bopp rek daal rek léegi loolu war naa mën rek war nañu ko mën a rey fii bala mu koy jóge waaye jibril daal di wàcc di wax yàlla jibril ni cëpp xamal ko pexe yi yahud yi fexe yonente bi dafa jékki-jékki ni ñokket rek jëm Madina bi mu ne ñokket bàyyi fa saxaaba yi mu àndaloon fekk ñu àndoon Abubakar ak Omar ak Aliyu bu ngeen dañoo dem dabi ko ni ko ni ko bëggee dem yëgaloon ci dara mu xamal leen pexe yi nga xam ne moom la yahud yi fexe tam jibril ko wax léegi ba mu àggee Madina toog la daal di yónnee ci ñoom ndaw ni leen dëkk bi nañu ko génn nam gën a gaa mënatuma fa mënatuma fa nekk ñoom yahud yi bi ñu amul pexe muy yahud yi Bani Nadir di waaj ngir génn Abdullah ibn Ubay mi nga xamante ne mooy kilifa naafeq yi di ko waxtaan ñoom ñu leen bu leen génn seen dëkk bi toog leen aaro ci biir ci biir suñu biir sang yi man ànd na maag ñaari junni nit te bu ñu leen génnee dinaa génn ànd ak yéen te ku xeex ak yéen dinaa leen jàppale léegi bi ñu leen waxee loolu nag seen kilifa seen xel dal loolu la Alxuraan di junj di wax ni la in uxrijtum lanaxrujanna maakum wala nutiicu fiikum ahadan abadan wa in xuutintum lanansurannakum léegi nag seen kilifa ga ñuy wax xay ibnu axtab daal di dëgër loo waxee naafeq boobu muy abdullah ibnu ubay daal di yónnee ci yonente bi ni ko ñun duñ génn suñuy kër seetal lu la neex nga def waaye fii la ñuy toog bi ndaw li accès ba wax loolu yonent bi sax mu kabar ci kaw ne allahu akbar saxaaba yëpp kabar yonent bi daal di ñëw kenn jóg wàcc daal di fab Abdullahi ibnu Ummi Maktum bàyyi ko Madina jox Ali ibn Abi Talib drapeau ba daal di jóg ne acca bismillah beneen na biir kon ñu nga jëm ca beneen na biir ngir xare jàng ba mu demee ba àgg mu wër leen ndomba wër leen kap ba mënatuñu kenn du dugg kenn du génn ñoom itam ba pexe amul ñu dugg ci seen biir sanga yooyu daal di tàmbali jël seen i fett di sànni ñii di sànni ay xeer di sànni ay doj la leen gënoon a dimbali ci xeex boobu nag mooy tooli tàndarma yi ñoroon waaye yont bi dafa digle ni nañ dagg tool yi lakk ko ba tool yi dañ ko dagg lakk ko ci dagg boobu ci la alquran wàcc di wax ni ma xataatum min liinatin wa taraktumuha qaimatan ala usuliha bi idnillah won leen ni leen ligalul yàlla ngeen ko defee waaye du ak yàq ñu dagg ñu dagg tàndarma yi lakk ko bani xurayza daru leen Abdullah ibn Ubay wor leen ñañ jàppanteelam ci Ghatfaan wor leen kenn ñëw loolu la alquran di wax ne ka masali sheytaani iz qaala lil insaani ikfur falamma kafara qaala inni bari'un minka ñu dafa mel ni dafa melal Abdullah ibn Ubay mi leen puus ci loolu di leen ni sheytaan yi weddi loo nit te bu nit ko weddee ba ba ba noppi ba la ko ci war a fekk day arrière ne ko man sama yoon nekk ci loolu Abdullah ibn Ubay noonu sheytaan yi doxee nit ki noonu la doxee ak yaxooti ba nit na bi yooyu wante bi leen waree encercle leen lu mat juróom benn fan la fa am yàlla tàbbal tiitaan yi ci seen xol ñu daal di yónnee ci yonte bi sax ni ko mën nañoo génn mën nañoo génn madina rek waaye yonte bi sartal leen ni leen nit ngeen génn ak lu seen i gileem attan ci ab sëf yéen seen seen jëmmi bopp daal man ngeen a mucc ak lu seen i gileem attan ci ab sëf waaye nag ay ngànnaay bokk ci noonu lañ ko defee génn ñoom seen jëm bopp yanoo yanoo ba datti tàndal ma sax dañ ko doon yanoo léegi sëfa sëfa sëf ba diis dal di génn dem bàyyi fa ngànnaay la ñenn ñi dem xaybar di ko des dem Sham loolu mi ngi nekkoon ci weer rabiul awal ci atum ñeent ci gàddaay yi tolloog nekk tolloog weeru août ci 625 daanaka ci xare boobu ci la yàlla wàccee saaru xasri ba mu jeex léegi mu des badar assaani léegi badar xam ngeen ni ci mujjantalu xareb Uhud Abu Sufyaan dina waxoon ni leen kon suñu rendez-vous maa ngi yéen mooy badar déwén yonente bi ni benn waaye nee leen ko waaw badar mooy fa ñuy daje déwén léegi ci weeru Saxbaan ci atum ñeent ci gàddaay gi tolloog janvier di 626 yonente bi sansa bi génn ngir dig boobu mu digee woon ci xare badar ci badaraat ñu war a daje badar mu ànd ak junni nit ak juróomi téeméer dem ba ba badar mu di fa xaar yéefar yi Abu Sufyaan génn ànd ak lu mat ñaari junni moom itam waaye nag dafa dafa mel ni bi muy génn ak tayeen la génnaale bi mu ñëwee ba tollu mar Zahraan xalaat na lool daal mu jóg xare ak coono yi ci nekk yi ci aju ak mu yëg daal tayeen ci yaramam ak ci tàngee xol bi mu demee ba mar Zahraan wax ñun àndal ni leen at mi atum bekkoor te yéen at mi baax ci yéen mooy atum naataange nga xam ne danañ naan di for ci ñax mi di wëgg ci dégg ba bañ a àgg fañ dem kon nag atum bekkoor léegi li baax daal mooy ñu bañ a dugg ci mbir xare yi daal di man maa ngi dëpp ba ni maa ngi dëpp it ñu ànd caag moom kenn gàllankoor xalaat boobu ndax dafa mel ni ñoom itam taayal googu mu yëg ak ci tàngee xool jooju mu yëg yëgoon nañ ko ñoom ñëpp nan la ñu dëppee jullit yi ñoom toog nañ ba daj juróom-ñetti fan di xaar noonu yi ba jaay la ñu yoroon ci wàllu commerce lépp bénéfice ci bénéfice yu am solo waaye gisuñu dara badar bi ñu lay tuddee badr al mawa'id am ñu koy tuddee badr al thaniya am ñu koy tuddee badr al axira am ñu koy tuddee badr al suxra xaswatu dawmatil jandal moom itam ci xew-xew yooyu la bokk yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu jógee foofu ci badar dellu madina juróom benn weer la ci teg xibaar yi andil ko ni am na ay giir yu bokk yu nekk ci peggu dawmatul jandal te dawmatul jandal mi nekk ci boru Saam ña nga fa di gàllankoor nit ñi dina nangu seeni alal di giir seeni alal di leen rey te it ña ngay dajale mbooloo ngir xeex si ak waa ngir songu si Madina yonte bi daal di bàyyi ci Madina ku ñuy wax Siba ibnu Hurfata daal di génn ànd ak junni nit di dox ci guddi gi di nëbbu ci bëccëg bi ba bett noonu yooyu ba mu leen bette ñu daal di daw tasaaroo ci biir àll yi mu sax fa ay fan yabal ay mbooloo nit ñi war gisuñ kenn mu dëppaat loolu mooy xaswatu dawmatul jandal masalatul ahzab ginnaaw bu yooyu yëpp jàllee mu mel ni jàmm daal nañu daj kapp ci jasiratul arab ginnaaw xare yooyu yëpp nga xam ne daanaka mat na at waaye nag yahud yi nga xam ne dañoo amoon dañoo mos toroxtaane ci seen diggante ak yonente bi ngir te lépp seen i war a ko waral ñu ngi doon xool rek résultat bi am diggante yonente bi ak yéefar yi di séntu loole di yéefar yi faagaagalan leen ko waaye li ñu xoolee gis ni nga ñaay li ci côté yonente bi la ëppee ñu jóg nag ni kon nañ sàkk pexe ñu sàkk sàkk pexe mooy ñaar fukki kilifa yahud dañoo jóg ñu ngi bokk ci Banu Nadir dem dem màkk ca waa Quraysh di leen soññi ci xeex ak yonente bi ni leen nit bu leen jógee ñun danañ leen jàppale waa Quraysh wuyu leen ndax bi li tax ñu leen wuyu mooy ginnaaw rendiw ba ñu joxante woon ak yonente bi ci xare Badr Badr bu ñaareel googu dikkuñ léegi ku jëkk jëkkaata ñëw woo leen ci lu demee nii rek wujji ko bokk na ci liy defar seen def ñu ànd ak ñu dëppoo ak ñoom ci wax jooju délégation yahudi yi